koor mbir mu rëy la mbir mu am importance la parce que xam nga suñu économie yi ñun mooy dëkk boo gis ci àddina bi économie am dafa taaju ci port port moo ko yore parce que euh, damay fàttali rek gis nga Sénégal gi quatre-vingt-quinze pour cent yi ñuy am bu amee lu ñu yóbbu ci bitim réew walla bu amee lu ñu jël ci bitim réew di ko indi ci réew mi ci port bi lay jaar kon nag muy secteur stratégique boo xam ne dañ si war a def attention parce que saa bu amee lu si gàllankoor rek day gàllankoor économie bi te ñun ñi nga xam ne nag ñooy soldats yi nga xam ne ñoo fa nekk dañuy wax ne nu sommes des soldats de l'économie gis nga ni fa douane yi nekkee di antu économie bi ñun ñi noonu lañ fa nekkee pour antu liggéey bi pour que liggéey bi jaar yoon moo tax ba nga xam ne pour man mi mbégte la ma ñëw parce que secteur la boo xam ne ñi ko xam barewuñu comme nag ñi nga xam barewuñu occasion bii ngeen may jox mooy ma expliquer yu bari yoo xam ne xëy na day simple si yéen mais mu nekk loo xam ne lu difficile la pour que ñun ñëpp ñu am compréhension boobu si po